wajud li abdika wa xibbika alxalil bi jayidin lahu yukathiru alqalil وهب له سعادة الدارين يا من كفاه العار كالنارين وهب له التوفيق في كل لياد واجعل حياة المستقيم عبلنا وجنبي يقبضنا من قبلنا يا كالصراط المستقيم حبلنا وجنبي يقبضنا من قبلنا بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wa akrami al awliyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammad xaatimi nabiina wa imaami al mursalin wa ala alihi wa sahaabatihi wa xayra xaddiimihi ajmain wa kulli man tabiahum bi ihsaanin ila yowmi ddin asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu nuyoo bu ànd ak ab ziyaar ak ay ñaan di feddli ku jëm ci suñu sang bu tedd bi ak Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké Mouhamad di ko ñaanal sunu borom subhanahu wa taala mu yàggal ko fi te wéral ko balim yéene liggéeyal sëriñ tuuba yéene koo liggéeyal lislaam ji lépp mu defee ko nam ko soobe te ñu fekkee ko te ànduk ak moom noonu lañ koy ñaanale mbooleem njabootuk sëriñ Mouhamed Mbacke gi yépp waaye di ñaanal bu baax sëriñ Abdourahman Mbacke Gaynde Fatma suñ borom subhaanahu wa mu defal ko ak bëggam ba lim yéene ci toolub woy juróom bi waa ak maamam yi lépp mu defe ko ni mu ko soobee xam ngeen ne niñ ko baaxoo defee saa su nekk ci liggéey bi yaakaar naa présenté nañ jataay bi ay yoon te mooy ndigal li sëriñ bi joxe saa suñu liggéeyee am at ba at mi toll ci jeex ñu def ab tukkib nemmeeku wër daayira yi nga xam ne ñoo bokk ci section bi ñu dem fa saafuxante ak ñoom nemmeeku leen saytu doxinu liggéey ba sant leen ci liñ weesu waaye soññee ñu waajalaat yi nga xam ne moo nekk ci suñu kanam ku ne xam na ne biñ ko tàmbaleeg léegi nag def na ab diir ndax biñ koy tàmbali ñu jóge woon fii jaari daarul islaam danki minam saar dem Touba daayira yañ fa am jóge fa dem ci wetu penku gi ba dem gasaan wàcc si saajo dem nañ fi ba keedugu yaakaar naa dimanche bi passé rekk lañ xëyoon dem Thiès boole ko ak daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi tey jii wara doon bés bi nga xam ne mooy mujj ci tournée bi ñu boole ñetti quartier muy Daaru Xuddoos ak Minnatullaahi ak Madina waaye ci biir tournée boobu nag ñu ciy fàttaliku ak a sargal Serigne Abdoulaye Makhtar bi nga xam ne nagani si daaw bi ñu koy def mi ngi woon fii toog tey suñu borom def mu jiitu ju ñu ci ngërëmul boroomam yàlla na ko sunu borom teeru te teral ko. barakatu seexul xaddim mu mel ne tàggat nañ tamit ay ndaw yoo xam ne war nañ ñoo ñëwal ci sargal Baye Abdou Lo ñoo toog nii ci sunu wet mu mel ne jataay bi niñ ko baaxoo defe rekk tënk nañ ko ci ay tomb yu néew bi ci njëkk di kàddu culture ñu war cee ànd ak sëriñ seex Dieng Bayla bi ci topp doon kàddu daayira yi te mooy ñetti daayira yi di daaru xuddoos ak minnatu ak madina ñu war cee ànd ak soxna ndey tàlloo bi ko ñetteel nag mooy doon kàddu sargal baay abdullahi maxtaarloo ñu war cee ànd ak tuut tànk yi bi ci topp nekk kàddu section bi sëriñ seex jëng ndàmm moo ñu koy defal bi ci mujj bi ko bi ci toppaat di question diverse ñeel ñetti daayira yi ku am loo ci bëgg a wax rek nga signalé ko ñu jox la kàddu gi bi ci topp doon kàddu sëriñ bi di tomb bu mujj bi ñu war cee ànd ak sëriñ Cheikh Kane Ndonga kon dañuy njëkkanteeg waxtu wi dugg ci kàddu gu njëkk gi muy kàddu diine kàddu culture sëriñ Cheikh Dieng bisimilah. auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani alhamdulillahi alladi xalaqa alsamawati wal arda wa jaala alsulumaati wannuura summa allazina kafaru bi rabbihim yaadiluun walladi xalaqakum min tiinin summa xada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamturuun wallaahu fi lsamawati wa fi l ardi yalamu sirrakum wa jahrakum wa yalamu maa taksibuun rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli fahimni al ilma wa sidni ilma wa amalan wa adaban wa fahma mbokk tedd yi fi teew ginnaaw bi ñu santee suñu borom subhaanahu wa taala di julli yonenteem bu tedd bi alayhi salaatu wa salaam di ñaan julli gi mu jàlli ba ci ak njabootam ak i saxaabaam ak sayxul xadim alayhi ridwanullahi baaxil xadim di ñaanal suñu xalifa suñu buntu yoonu Serigne Touba muy Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim suñu borom may ko fanu gudd ak wér-gu-yaram ba mu àggale naal yi nga xam ne moom la naal ci yoonu Cheikhul Khadim wa ma salika alallaahi bi asis ginnaaw bi loolu jàllee ñu ngi leen di nuyu nuyub julit ak mbokkam te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, fas yéene ñëw ci ni ko suñu Abdourahmane waxe rek muy li walal jataay bi muy nemmiku daayira yi yi nga xam ne moom lañ doon doxal Euh, ba toll ci ca cëppaandaw ji ñu war koo tëj tey ji insha allah <coughs> ñu tàmbaleen ko ci bisimilahi rahmaani rahim di ñaan suñu borom mu àggale ñu ko ci alhamdulilahi rabbil alamin waaye nag ñu ñu dara ko suñu kilifa goo xam ne dafa àndoon ak ñun liggéey bi te jiite woon ko euh, nekkoon jàmbaar joo xam ne ñëpp xam nañ ko muy sëriñ Abdoulo kon li ñu njëkk a def rek mooy kenn ku ci ne na teewlu jàng faatiha bu sell ak fukki lixlaas ak benn euh, yéene ko yool bi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk euh, barsàq suñ borom jot leen ci yool bi waaye ñu fasaale ci Baye Saliou Kane mais dafa waxoon ne tey jii la lay ñaanaaleel soxnaam suñu soxna Fatou Kane ñu fasaale ko ci waaye dugalaale ci mboolem mbokki jullit yi nga xam ne rek ñu ngi ci barsàq maanaam Fatiha euh, ak fukki lixlaas ak benn salaatu nabi bu waay man yéene leen yool bi incha allah ko nag suñ boroom daal di indi aaya boobu moo tax ñu ne aaya boobu ci la wàccoon foofu nag bu demee ci ulama usul dañuy wax ne bul jàpp ne aaya bi ki mu wàccoon kese rek moom mooy nekk particulier am déedéet aaya boobu ba léegi mi ngi fonctionné képp koo xam ne bëggoon nga nitu yàlla te mi ngi dëgg ci yow nga bëgg ko ni ko sa sawbaan bëggee woon xamal ne bu ëllëgee nitu yàlla woowu fu mu àgg ci àjjana yéen ak moom yéen bokk benn martaba loolu alxuraan la boo xam ne aay boo xam ne bu wér céng la mu nekk sóot ni sax muy muy aaya bi muy man yuti llaaha wa rasula fa ulaika ma allazina anama alayhum min annabiina wa siddiqina wa suhadaai wa saalihina wa xasana wa xasana ulaika rafiqan saalika alfadlu min allaah wa kaana laa wa kaana laahu alima aay boobu dañuy wax ne borom xam yu ci bari dañoo wax ne ci sawbaan moom la wàccoon bi mu wax jàmbatee ñàkk a gis koy ñàkk a gis bu ëllëgee la aay boobu wàcc aay bi li muy tekki mooy lan suñ borom wax ci alxuraan ne man yuti allaaha képp ko am da ngaa yàlla wa rasula te topp yonent bi fa ulaayka gaa yooyu topp yàlla topp yonent bi fa ulaayka maa allazina anama alayhim min annabiyina bu ëllëgee ñoo yonent yi ñooy bokk fu nekk fa ulaayka maa allazina anama alayhim min annabiyina wa siddiqina ak ñi nga xam ne dañoo am martabatu siddiqiya ku ne xam ne ne martaba nubuwa benn martaba rek moo ko féete kaw maam siddiqiya boog laa bëgg a wax benn martaba moo ko féete kaw muy annubuwa kon bu ëllëgee maam yaag anbiya yéenay bokk fu ngeen nekk ak siddiquna ñi nga xam ne dañoo dëggal ak ñan wa suhadaa yi ñi nga xam ne ñoom martyr dee ci xare ku ne xam ne kooku seen garaat kenn xamu ko ak lan wa na ak nit ñu baax ñi kon aay boobu dañ ciy dégg ne képp koo xam ne sopp nga nit yàlla bu ëllëgee maanaam yow yaag nitu yàlla kooku fi mu newoon bu àjj ci ëllë bu àjj ci àjjana bu ëllëgee yaag moom yéenay bokk genn kër àjjana aay boobu moo koy argumenté ndax sawbaan moomu sopp yonti gub sopp yonti bi ba mu nu koo muñ moo tax aay boobu wàcc ci moom léegi nag borom xam-xam yi wax ne surtout ulama usul muy les fondamentalistes ñi nga xam ne dañuy créer ay ay lois dañoo wax ne aaya bu wàccee al ibratu min umumi lafsi laa bi xusuus sabab aaya bi bu wàccee du nekk particulièrement rek ci sawbaan la wàccoon mais ba léegi képp koo xam ne ni sawbaan meloon ci nitu yàlla kooku muy alayhi salaatu wasalaam mel nga ko ci nitu yàlla te muy dëgg ci yow atteb sa atteb aay boobu day dal ci sa kaw la même chose képp koo xam ne ay atte at aay bi wàccoon ci Firawna li Firawna doon appliqué yaa koy appliqué ci kaw su xamal ne aay bu wàccoon ci Firawna day dal ci sa kaw ba léegi day ñëw di atte démb ak tey ak ëllëg kon li ñu ciy déggee mooy aay bii képp koo xam ne da ngaa def ni sawbaan defoon bëgg nitu yàlla bëgg gu wér ba mënatoo ko muñ ba léegi nitu yàlla koo fu mu nekk yaa moom yéenay bokk benn bërëb ci àjjana kon ñaari hadis yi ma indi ak aay alxuraan bi tegtale bu wér ne kon ñun tur wi ñu soppe muy ahibaalu maanaam ñun mënuñu koo fay tur wi képp mënuñu koo fay waxuma laa nag liggéey bi kon liñ ci maanaam gën koo fonkaat bu baax xam ne sopp ku mat a sopp dëgg-dëgg kooku kenn fayam ndax première fay bi rek Sëriñ Tuubaa bu ëllëgee yaa moom yéenay bokk te yow martabaam kenn mënut a liggéey ba àgg martaba Sëñ Tuubaa sopp doo nga ko mën a def àgg fi àgg te loolu ay hadis la yoo xam ne ay yu wér la ak alxuraan yoo xam ne wér amul loo xam ne dama naan jël naa ci xista nangam boo ubbee alxuraan gis ko ci boo ubbee hadis gis ko ci mu nekk ay hadis yoo xam ne ay sax yu wér téng la kon nan góorgóorlu ci tur bi maanaam liggéey li tax sëñ bi maanaam tuddañu ahibaalu xadim maanaam du du pas hasard kon jàngatoon nan ahibaalu xadim jàngat li nu sa din xam nag bi nu amee tur ba pare nag li tax nag ñu ñu ñu fonde ñu nag moom lañ doon dawal ci ginnaaw mooy ñu xam lan mooy diine aussi pour dimbale ko parce que ñaari tur tur wi ñaari ñaari yu éléments yooyu la composé ahibal xadim pour lan pour dimbale diine ji kon bi nekkee ahibal xadim il faut ñu comprendre nag diine ji ba man koo dimbali dimbali diine il faut ñu mënoo dégg mënoo dimbali diine te déggoo ko kon mu gudd mu gàtt bu tur yu ahibal xadim képp ak ak objectif bi mooy lépp diine ko tax a jóg kon nan ci diine ji surtout rawat ni nga xam ne sax fu ñu toll mi ñuy soñu ci ñu jëm koo dégg jëm koo xam parce que mooy li ñu jariñ fii di ñu jariñ ëllëg ginnaaw bi nga xamee nag sopp nañ ki nga xam ne moo mat a sopp nga xam ne sopp ko moom maanaam rek doy doy na liggéey ndax dañoo wax ne liggéeyal nit yàlla yi bi ci gën a bi ci gën a am doole mooy sopp ko sëñ Tuubaa bi mu leen bi mu leen décrire ci xuqal bu kaaw wax niñ mel wax seen parcours ak cata catégorie si leen kenn ku ne nag mu ne leen nag ba mu la mu tëjee nag mooy texe ñeel na ki liggéeyal gaa yooyu benn nga liggéeyee leen wala nga sopp wala nga jox leen addiya léegi foofu am na benn taxaw seetlu bu wér parce que nit ki mënoo liggéeyal koo bëggul mënoo jox addiya koo bëggul kon moteur bi bi bi fonctionné lépp muy dynamique bi mooy sopp parce que nit ki boo ko soppee da nga ko liggéeyal boo ko liggéeyal da nga ko jox addina da nga bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaat muy bu ne ci digg bi muy xubb bi sopp sopp moom yëmut ak moo tax mu raw ku dut moom ci yonte bi mahat mahabateel muxtaara sayidna hubal maxaane wal ahlina wal walada moom daf koo bëggoon ba place am dara xajutu fi lu may yonent bi alayhi salaam bëggut doom bëggut alal bëggut dara sopp googu nag mooy tax mu maanaam nga mën a jariñu ci ki ko mais soppi falaa falaa yi ci rek moom da nga bëgg bu wér fees dell sa xol ba dara xajatu fa nga xam ne bu doom ñëwee du am place bu mu wu bu ndey ñëwee du am place wu dara du fa mën a placé lu may bëgg yonent bi ak bëgg maanaam suñu borom subhanahu wa taala kon ñun maanaam bëgg sëñ Tuubaa dafa war a fees del del del suñ xol ba ku ñëwaat wala lu ñëwaat wala fu ma ñëwaat yow duutoo ko gis bëgg bëgg sëñ tubaa da gis loolu boobaa mooy tax tur wi ñu la wooyee dëgg-dëgg mu nekk ci yow bu ëllëgee nga bokk ak sëñ tubaa nekkoon kon ñu ngi jégalu baax wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu ziyaare seen mbokku taalibe Seynabou Diop moo sama mbokk daara Axbaar Xadim mu ndaam maa leen nuyu di leen siyaare soxna ba Bas daayira axbaar xadim bu ndaam salaamaaleykum soxna Bintu. maaleykum salaam soxna maam say. danga demul tuur tey. léegi nekkatuñ si tuur ñu ngi si tournée yi. soxna Bintu lan mooy tournée. tournée dafa bokk si liggéey sëriñ bi moo ko boole si règlement yi.

kon ñu xam ne tournée bi tey dañu ko darajaale Baye Abdou Lo ak di ko ci ñaanaaleel ak bu waxtaanee kuy sëriñ Abdou kon dañu ci ànd ak soxna May Diop soxna May Diop bisimilah. bisimilah rahmaani rahiim yéen mbokki daara Ahibahil Khadim ñoo leen nuyu di leen ziyaare seen mbokk taalibe so soxna May Diop moo leen nuyu daara Ahibahil Khadim bu Daaru Xudoos tey dañoo ñëwoon pour bëgg leen waxal ci Serigne Abdou Lo ñu war cee ànd ak Serigne Fallou kon nañu ànd ak Serigne Fallou mu waxal ñu Serigne Abdou Lo Fallou bàyyi la nga nuyu mbooloo mi Serigne Fallou bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu bu baax kenn ku ne sa tur ak sa sant di ñaanal Cheikh Moustapha Mbacké Mouhamed yàlla sunu boroom yàggal ko fi ba lépp loo xam ne bëgg na kaa liggéeyal maamam ju tedd ja mu ànd koog waaw comme niñ ko waxee rek sëriñ Abdou ku ko xam xam ne neex naa waxtaane waaye naqari naa waxtaane ñu ñëw rek jukkil leen ci tuuti rek après sama naataangoo bi dana ko àggale sëriñ Abdoulahi Makhtar Lo waajuram bu jigéen mi ngi tudd soxna Faati Assane Dieng waajuram bu jigéen waajuram bu góor mi ngi tudd soxna waajuram bu jigéen mi ngi tudd soxna Faati Asan Jang waajuram bu góor mi ngi tudd Serigne Maxtaar Lo sëriñ Abdoulaye Maxtaar Lo mi ngi gane àdduna le 3 huitième mois 1943 mi ngi wuy ji boroomam le 23 août 2023 Serigne Abdoulaye Maxtaar Lo kenn ku ne xam na ne. sëriñ Cheikh Mbacke moo ko joxoon dëkk bu sell bii di Taïf Mbacke en 1975 ba 1978 sëriñ Cheikh Mbacke wuy ji boroomam sëriñ Mbacke soxna loo joxaat ko dëkk bii ba 2005 sëriñ Mbacke soxna loo wuy ji boroomam sëriñ Abdou Fata continuer joxaat ko dëkk bii ba 2017 sëriñ abdu Fata wuy ji boroomam. sëriñ Abdourahman Mbacke jox ko dëkk bi kon nag kenn ku ne xam ne ne sëriñ Abdoulaye Makhtar Lo ci xilaaf ak sëriñ Abdourahman Mbacke ci la wuy jee boromam. jërëjëf sëriñ Fallou ci leeral yooyu am na solo kon dañuy wéy ak yow ba tey nga ñëwoon ñu ci sëriñ Modou Moustapha ak sëriñ Abdou Lo waaw sëriñ Modou Moustapha ak sëriñ Abdou xam naa ne duñu ci sori waaye kenn ku ne xam na ne sëriñ Modou Moustapha moo tudd ki nga xam ne moo di sëriñ Abdoulahi Makhtar Lo bis bi nga xamee ne teenu Taif bu mag bi bënd na bi mu paree ci la ànd ak ay mag ñëw ci kër gi di kër sëriñ Abdoulahi Makhtar Lo tudd ko tudd ko tudde ko boppam ne sëriñ Abdoulahi Makhtar Lo dina fi yàgg te dina am barke jërëjëf sëriñ Fallou ci leera ya am na solo kon dañuy woy ak yow ba tey nga xamal ñu ci si diggante sëriñ sëriñ ak sëriñ seex Mbacke waaw sëriñ Abdoulaye maxtarloo ak sëriñ Cheikh mbàkke kenn ku ne xam na ne sëriñ Cheikh Mbacke moo jox xoon dëkk bu sell bii sëriñ Abdoulahi Maxtaar Lo bi mu ko koy jox daka woolu fee ca Dakar ne ko dama laa bëgg a jox dëkk bu sell bi di Taïf waaye nag nekkul ne li ko sa waajur wa yoroon moo tax ma bëgg la kaa jox waxtaan naa ak ñu bari ñii ne man nga kaa yor ñii ne mënoo koo yor waaye man sëriñ Cheikh xam naa ne man nga kaa yor sëriñ Abdoulaye Makhtar Lo ne ko boo ñu ci jàppalee de ñu yor ko mu ne ko ñaari sàtt yii de boo sàmmoontee ak moom da nga yàgg lool ci yor gi ngay yor taayif mu ne ko bisimilah mu ne ko déem a wax dëgg te bul di jay nit ñi bi nga xamee ne sëriñ Abdoulaye Makhtar Lo ñëw na taayif mag ñu bari doon nañ ko ñaanal ci yan bi nga xam ne yan woon na ko mu yàgg ci ñu bari tamit kontaan nañ ci waaye ràññee nañ ci kenn ci mag ñu baax ñooñu muy se muy bàyyi sëriñ loo dëgmal bu ndaam jugee na ndaam ñëw fii ci kër gi bind ab téere jox ko sëriñ Abdullahi Maxtaar Lo ne ko maa ko barkeeloo ci yan bi nga xam ne yanu nga ko danga ci yàgg lool ko nekk nag xam na ne sëriñ Abdoulaye Makhtar Lo gi mu yor Taif yàgg na ci lool te barkee na lool ba tax na yor na ko diiru ñeent fukki at ak lu topp mu daal di wuy ji boroomam kon nag mbokk yi nañ ko delloo njukkal bu baax a baax ñaanalaat ko bu baax a baax ndax kat sëriñ Abdoulaye Makhtar lépp loo xam ne warloo loon na ko ak ñun def na ko lépp loo xam ne warloo loon na ko ak waa dëkk bi def na ko kon nag wàcc na sëriñ Fallou Lo moo nekkoon ci kàddu gi wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Fallou ci leeral am na solo yàlla nañu yàlla may dégg ànd ak topp kon ñu ngi woo soxna Absatou Lo mu ñëwal ñu ci mu ci diggante ak sëriñ Mbacke Soxna Lo asalaamaaleykum mbokki ak xibaar xaddiim maa ngi leen di di leen siyaare soxna ab solo daayira ak xibaar bu ndaam kon ñu ñëw ci diggante Baye Abdou ak sëriñ Mbacke Soxna Lo dañoo jaxasoo woon lool bëri woon na lu mu ko daan di waaye dañ ciy indi tuuti rekk ci seen diggante lu ci mel ni bi motooru forage bu Taïf bi paanee Serigne Mbacke daa woo Baye ni ko Abdoulou bëgg naa forage bi baax Baye Abdoulou daa dem Dakar di ko lijjanti nekk fa ba guddi mu ñëw dem di nuyu Serigne Mbacke sëriñ Mbacke ne ko Abdoulou ana forage bi mu ne ko ñoo koy monte Serigne Mbacke jug di ni ko abduloo am nga ngërëmal Serigne Moudou Moustapha bokk na ci ba tey ci seen digg ci seen diggante sëriñ Moustapha Mohamed bi mu jàngee Maroc ba ñëw Baye loo la ko booleeloon mu ànd ak si mu ànd ak sëriñ Ahmad Tindoodi ak sëriñ Moodu Boussa Dieng ak sëriñ Sall ambassade ñu ànd ak sëriñ Moustapha yóbbu ko ci sëriñ Saalim ba mu eggee sëriñ Saalim da ko doon teste di ko laaj laaj bu mu ko laaj sëriñ Moustapha tontu ko Serigne Saliou ne ko Moustapha mu ne ko Serigne Saliou ne ko jaajëf Moustapha lu nit di xam rek xam nga ko ba ba tey rekk ci seen diggante bokk na ci sëriñ mbàkke mas na kaa woo guddi ni ko Abdoulou daa am loo xam ne du ma fi fekk te yow dana la fi fekk ndax man damay dem ni ko Abdoulou ni ma taali ni ma yirifee taalibe yi ak ni ma taalibe yi gëmee Moustapha dina leen ko yirifee nu ko raw te taalibe yi dinañ ko gëmee nu ko raw soxna kon nag ñu xam ne rekk ku ñeme dañ laa dénk wasalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Ahibahil Khadim soxna Aminata Lo moo leen di nuyu Ahibahil Khadim bu ndaam di ñëw ci diggante Baye Abdoulo ak Sëñ Moustapha seen diggante nag bari na loolu waaye dañ ciy tënk lenn rekk li ci njëkk mooy wooteeb xel koom fekk booba Baye Abdoulo feebar bañ tere ko mbooloo ak coona sëriñ Mbàkke jox ko ndigalal toog sëriñ Moustapha jóge niwoo ji fekk mu toog buntu këram mu ne ko Abdoulou dangaa demul xel koom mu ne ko déedéet dañ maa coona te waxtaan naa ak sëñ Mbàkke mu ne ma am naa ndigalal toog mu ne ko jugal dem maa la gaarante bi mu demee ba ñëw muy nuyu sëñ Mbàkke ànd ak sëriñ xaa ak ànd ak sëriñ Xaadim Moodu Baara ak sëñ Moustapha bopp bi daal di xaw puseer sëñ Mbàkke ne ko Abdoulou xanaa dima woon xel koom mu ne ko ankay si Moustapha moo fi jaaroon ne ma dangaa demul xel koom ma ne ko docteur dañ maa tere coona te waxtaan naa ak sëñ Mbàkke mu ne am naa ndigal toog mu ne ma jugal dem maa la gaarante sëñ Mbàkke ne ko man de ñeenaa la yow mi sëñ Moustapha nangoo gaarante ba tey bokkoon na ci bi Serigne Moustapha di dog di sos Ahibahil Khadim booba daa fekkoon mu feebar ñu war a dem tournée sëriñ Fallou ne ko Serigne bi joxe na ndigal mënoo ñàkk bi a dem bay boo nga jéem a jug dem mu ne ko ah yaram bi de fii mu tool nii diis na loolu waaye lenn rek laa lay ñaan fu ma faatoo ak fu ma man di faatoo na ngeen ma fa suul te xam ne ci ndigal laa faatoo looloo taxoon amul woon sago ci Serigne Moustapha ba tey Serigne Moustapha bi mu taxawalee Ahibahil Khadim liggéey na ci liggéey bu am solo ba sëriñ bi mas naa jóge niboo ji ñëw ba kër ba këram bi mu ñëwee ba egsi xamal ko ne ko abduloo leer na ma naññ ne may saf sëriñ bi mu ko waxee loolu bay abduloo daal jooy daal ne alhamdulilah lii de xam naa ne ñu bari amuñu ko sëriñ Moustapha ne ko lépp lu sëriñ Cheikh tàmbali woon ci yow sëriñ Mbàkke yéene ko ci fas yéene naa koo eggale ba sëriñ Mbàkke ko lépp lu sëriñ Cheikh tàmbali ci yow sëriñ Mbàkke ko ci fas yéene naa koo eggale ba tey bokk na ci bi nelawee bañ jullee ko ba di dugal ko ci bi di ko yóbbu bàyyi baara mbeen ñoo na ba sëriñ Moustapha ne ko sëriñ Moustapha Abdou de dem na mu ne ko waawoo Abdou Lo de ngi ni dem àjjana bàyyi baara ne ko man de su ma leeroon ne islam su ma deewee dem àjjana kon ma kon ma faatu mu ne ko mu geesu yem ci barabu siñ Mohamed ne ko kii kenn di ko liggéeyal di dem faneen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu taalif bi maa ngi koy taalif sëriñ Abdou nee leen tekk ni xelaw ma fàttali leen xam naa ni kenn dootu ko fàtte benn yoon kookaay di sëriñ Abdoulahi Makhtar Lo axibaay xadim góor jigéen mag ak ndaw di jooy baay Abdulo jàmmal axibaay xadim ñépp a àndandoo ñépp àndandoo di ñooy bay Abdulo jàmbar ay bisam nga woon guddik àllarba la dem barsàq guddik korok ba rey na lool ndax moy ki jiite woon axibaal xadim waaye kullu nafsin sayxati mawti deedu jaas axibaal xadim ñépp àndandoo di jooy ba yàlla yokki leer bay Abdulo jàmbar amino amino amino ne leen amin ci barkeb Seex Mustafa yaayam ju tedd ji ak sëriñ Mbàkke ak sëriñ Baara Mbàkke ñooñu la daan waxtaanal alhamdulillahi wa salli wa barikal ala seydina muhammadin wa alihi wa sahbihi sawil mawalin sëriñ Abdulo yal na ko yàlla teeru teral ko may ko leer sa barsàq ñun ñu fi nekk yàlla yal yàlla yàlla borom bàyyi ñu fi ñu koy ñaanal fu ñu toll kon ñu koy jaale mbooleem regroupement Ahibahil Khadim di koy ziyaare mbooleem jamaatul muridina saadihina di ko jaale ansaalu diine diaspora daayira seexi ak mbooleem section yi di ci jiital section Taïf di ko jaale soxna Moominatu Mbàkke sëriñ Basiiru Joombéb sëriñ Moustapha Lo dëgmal soxna Xuja Mbay ak sëriñ Seex Kan Donga ki leen nekkaloon ci kaada gi di soxna ndooy ndooy daari daayira ahibaal xaddim daaru salaam wasalaam alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki diini iyaaka na'budu wa iyaaka nastahin ihdina siraatal mustaqim siraatal lasiina an'amta alayhim xayril maxduubi alayhim wala daalin amin assalaamu aleykum mbokki ahibaayil xaddim ñoo ngi ñépp di ziyaare ñépp di jiital ci nuyoo boobu ak ziyaara bi sëriñ Moustapha Mohamed di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ñu yàgg ci ginnaawam di ñaanal suñu way dawli di ci jiital borom pàkk bi ñu teew di sëriñ Abdou Makhtar Lo ñoo ngi ñaan yàlla yàlla yokk ay leeram te yàggal fi njaboot gi mu fi bàyyi def ci ñoom barke ñu di leen jot li nuyoo sëriñ Basiri Diop ak soxna Ami Sidi waaye di leen jot li nuyoob soxna Ndey ak sëriñ Bay Joobe waaye di leen jot li nuyoob soxna Ami ak soxna Fëñ Njaay Seex waaw di wax ne ñoo ngi kontaan bu baax ci wuy gi ngeen wuy si lii nga xam ne ñun ñoo ko bokk te mënuñu koo xaajoo ñu wax na ñu ngi leen di dalal jàmm di leen ñaan suñ jataay bi yàlla na jataay yu mucc di jataay texe ci ëllëg yow bal di wax ne mi ngi leen di sant bu baax sëriñ Basiru Diop mi jiite section bi nee na ngi sant bu baax di gërëm bu baax na xam na ne lépp ndigal lu ma sa wàcc yéen a ngi nab nab yi guddi ak bëccëg di jéem la ngeen man ak la ngeen mënut nee na lépp agsi na waaye mi ngi leen di sant bu baax di leen jaajëfal te xam ne ki ñu koy jëfal man na lépp ki nga xamante ne si nag moo ñuy jox ndigal ñu ci nam na bi nee na mi ngi ñaan yàlla nuñ boole dimbali ñun ñëpp muy sa muy muy te ki nga xamante ne si moo tax ñuy jëf lu kenn nag ku sëriñ Serigne Touba te Serigne Touba lu ko waay jëfal ak lu mu xat-xat ak lu mu tuut tuut xam na lépp te dara la fay lépp ndax mas waa mas naa wax ne sama taalibe yëpp de bu ñu wàccandoo woon ab liggéey ci benn bis ñu wax ñu dugal leen ci benn paax di laa naal nangu par kenn ba kenn ku ne yaakaar na yow dong laa nangu am naar bu toogoon ci moom xaw a diingat mu ne ko jant bi de xanaa ku fenk ci sa kër yaakaar nga ne yow jant bi sa kër rek la fenk mu ne ko waaw mu ne ko ki man loolu nag man na lu ne ndax jant bi fenkul sa kër donc fépp la fenk kon ñu xam ne kooku moo jëre jëfal te waxoon na sama loxo bii kum seddu doo añ kon sëñ Basiru Jóob nee na ñu góor góorgóorlu bu baax ci ndigal yi te bañ koo caaxaane comme ni ko Cheikh ibraahima Fall waxee woon mooy suñu buntu baabil xulóob mooy suñu roykaay ci yoonu murit ndax waxoon na ne sëriñ bi de bëskul la rek kenn du ko tiime ay wax nee na képp ku ko tiime ay wax de boo peesee doo am dara waaye képp ku ko tiime jëf lu mu tuut tuut boo peesee da nga am dara Seex Ibra Faal moom mu nga xam ne xamoon na sëriñ bi daan ko jëfal guddeeg bëccëg dem na ba ci ak mu jëm nga xam ne booba mag la da daan ñëw ba ci sëriñ bi sax mu toog di ko laaj naan ko man de Mbàkke damay laaj ndax dese nañ fi dara mu ne ko ah lu tax nga wax loolu mu ne ko ah damaa gis kat xéewal yi bari lool ma yaakaar na sax li liggéeyoon dag ñu cee noddil jox ñu ko Sëriñ Tuubaa ne ko Ibra Faal la ma waxante yoon ak yow ci Mbàkke Kajoor fii loo fi gis bool bu duy la rek ba mu fees toq-toq yi mooy xéewal yi ngeen di am waaye fay gi ëllëg yowmal xiyaam laa koy commencé kon nanu góor góor lu ci jëfe ndigal yi ñu rawatina suñ bokk jigéen yi nañ na dann sëriñ bi te bàyyi caaxaan yi te moytu bakkan ndax sëriñ bi wax na ne képp koo xamante ni sa taaxu wurus caabi ja mooy bakkan soo xeexee moom ba not sa bakkan boo jëlee caabi ja danga danga danga dem ba jot sa taaxu wurus bakkan nag booy def lu baax dalay bañ loo boo doon ñëw ci daayira bi dana la tàyyee loo bu la laajee dana la fexe ba na la ah te nga ko joxe fee nga dem bàyyi ko dem joxe fee bañ a kon nee na ñu góorgóor lu baax na dann sëriñ bi bañ koo booleeg dara te xam ne sëñ Modou Moustapha la ma waxoon ne ak ak ju ak am taalibi rek ndax sëriñ Touba wax na la li ma yor day jaay wut bu ko doon may may ko sëñ Fallou ak sëñ Modou Moustapha ak sëñ ma sàmba te ñoo wax na leen carrément ne man li ma yor day jaay nee na njëg gi nag mooy ak taalibi ak taalibi rek mooy ak njëg ak dëggal ci biir ak ci bitti mu ne taalibe googu tamit nit dina am ab xaritam yéene ko ak taalibe te du ko am nit dina jur doomam yéene ko ak taalibe te du ko am fekk nee na borom taalibe gi moo nëmmut ci yow nga doon ak taalibeem nee na képp koo xam ne sëriñ bi namm na ci yow ba nga doon ak taalibe sa taalibe googee da nga ko jàpp bu baax téye ko bu baax denc ko foo xam ne yàqu du fa àgg te xam ne sëriñ bi moo namm lool ci yow ñu góor góorgóorlu ci baax a baax a baax gën a yokkaat pas-pas yi gën a yokkaat liggéey bi te xam ne ñi ngi sant ci at yi jàll war a duggaat ci at mu bees kenn ku nekk ne war ngaa toog def ab commerçant def réglé ba xam yow li la waroon ci 2023 bii tegoon nga màggal gu dëkk wala tegoon nga gàmm wala sa social ba mat na war ngaa xalaat bu fekkente ne matul nga jéem mu mat su fekkente ne mat na nga ñaan at mi ñu dugg dara bañ laa raw ndax sa Abdou Lahad kat am na lu mu waxoon newoon na say wi kat ku ëttul say wi tamit fexeel ba jël ci sa matt rek di ko laa-nga-laa ngeeg moom foo jëm matt googee nga cay jël nag nee danga koy fonk bu baax foo jëm di ko fa yóbbu ndax bu yàggee day dem fekk sayu mag wa say wa nga xamante ne si nee na kenn rek moo ko àttan muy Seydina Mouhamed waxaan ne ba mu ne ak lu néew mu ne Serigne Touba moo tax moo taxoon ma di ko wax kon nag kenn ku nekk la nga matt ga nga am ca say wa danga koy jéem a jàpp ak sa fukki loxo ak juróom di ca góorgóorlu la nga la nga man guddeeg bëccëg bu yàggee dina dem ba ànd ci say woowu nga xam ne Seydina Mouhamed moo ko àttan ak Serigne Touba kon nañu góorgóorlu baax ci am ak taalibe am pësteef ndax bépp taalibe boo xam ne tamit amoo pësteef wax nañ ne mi ngi mel ne ngay rot ci ab teen yor ndab lu bënn rek xol bu Pastef nekkul akuk dëggal mel na ngay rocc ab teen yor ndab lu bënn loo duy duy duy du fees waaye bu fekkente ne dëggal akuk Pastef mi ngi sa xol buñ la doon defal ay toq toqit bu yàggee da nga feesal kon ñi ngi ziyaare ñëpp di wax na kàddu yi bëggoon nañu lu ko raw ndax dañoo sant lool ñun ñetti daayira yi nga xam ne ñoo séq mbir mi tey kontaan nañ lool ci wuysi bi ñi ngi ñaan képp koo xam ne ñëw nga fi sa tànki dem ak sa tànki dellu yàlla na ko sëriñ bi soppi ay yiw ak dencal la ko foo xam ne yàqu du fa àgg wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kàddu yi pas-pas yi ak kàddu yéene yi yàlla ñu yàlla defal déggu ànd ak topp yaanaa sa kàddu yi moom jàjj na ko fi toog ku nekk te ak taalibe yitteel la kon niñ ko baaxoo waxee rek. Euh, tënku wut yi buñ noddee timis dañoo war a yeeweeku kon buñ noddee timis ku nekk xam na ne li des jataay bi bari na te wax nañ ko ba tàyyi wax ne sëriñ bi daa waxoon ne na ngeen ci def seeni guddi ak seeni tey nag defagun ci bëccëg am ngont lañ fi ñëw te genn wàllu ngoon la kon buñ jullee timis nañ toogaat ànd akuk dal ñu àggale liggéey bi su ko defee ñu kàdd jàll ci quatrième point bi di kàdduk section bi ñu war ànd ak Serigne Cheikh Dieng Ndam aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki ahibaa al xadim li nusrati dinil section bu Taïf ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziara te di leen jégglu di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi sëriñ Abdourahman sëriñ sëriñ Moussa Mbacke di ñaan suñu boroom yàggal leen fi te wéral leen ba liñ mébal lépp ci yoonu islaam ak ëttub sëñ Modou Moustapha bi suñ boroom defal leen ko tañ ànd ko ak ñoom di jégglu bu baax ci kàddu yi xam naa day kàddu yu rek waaye lott nañ ci euh, ñu di ko wax ci kàddu Serigne Bassirou Diop soxna Mominatu Mbàkke Mohamad euh, ak Serigne Bassirou Diop euh, ñoom seenu cant ñu di ko tàmbalee ci ñaari sous section yi muy homme ak femme buñ tuddee soxna Khoudia Mbaye mi nga xam ne moo jiite soxna yi ci section bi mu yóbbaale fu ab daayira nekk ak fu soxna mën a nekk ci section bi waaye bu ko tegee ci loxol sëñ Cheikh Kan Ndongo it mu yóbbaale mbooleem fu euh, ab daayira nekk ci section bi ak fu ab membre bu góor nekk ci section bi mu wax ne gannaaw bi mu santee yàlla euh, julli ci yonente bi sant Cheikh Moussa Mohamed mi nga xam ne moo ñuy liggéeyloo liggéey bu sell bii nee na mi ngi sant mboolem képp koo xam ne jënd nga kàrtu ahibaalu xadim li nu sari diinil xayum ndax loolu kat mooy liy wane ne da bokk ci liggéey bi bu at mi jeexee it nga yeesal ba mooy wane ne la nga diggante woon ak sëriñ bi tamit ba tey génnoo ci kon cant gi képp koo xam ne am nga carte wala nga am rusi bi nanga xam ne yaa ngi ci biir cant googu mu wax ne nag lii dafa doon loo xam ne dafa bokk ci liggéey bi muy fukki weer ak ñaar di am at boo ko liggéeyee ba mu àgg ci ab section jaadu na nga nemmeeku daayira yi ndax doonu ne daayira yi nekk ci biir Taïf rek ñooy daayira yi waaye dafa am daayira yoo xam ne ñoo composé section bi tax ñuy wax section daayira yooyu nag dafa toll ci fanweeri daayira ak ñett kon section Taïf buñ la laajoon ñaata daayira la fanweeri daayira la ak ñett ci 2023 bi ñu nekk nii suñ duggee beneen année nag bu dolli koo nga xam ne dafa dolli ko waaye 2023 bi ñu nekk section daayira yi ko composé fanweeri daayira la ak ñett tournée boobu nag ñu tàmbali woon ko le 11 décembre euh, ba tey ñu agsi fii ci Daaru Xuddoos ak Minatu ak màddina war ko fee jeexale comme ñi fi jiitu ñëpp niñ ko waxee euh, fanweer daayira ak ñett yooyu nag kon mën nañ ne benn daayira rek lañ fa ëggut muy dakaar te Basiru Jóob waxtaan ak ñoom waaye xëy na dañoo am ay ngànt ba tax demuñu fa waaye kon ñu xam ne fanweer daayira ak ñett yi ñu wax benn daayira rek lañ ci demut muy dakaar waaye mu ne na ngeen xam ne sant na bu baax euh, daayara bu nekk ka ko jiite cant gi ci moom la koy tàmbulee waaye bàyyiwul kenn waaye na ngeen xam ne liggéey bi daal saa su nekk fi ci nekk moom lay xamal ñépp muy nga def ci sa guddi def ci say bëccëg tey déglu sëriñ bi te xam ne sëriñ bi dara ñoru ko lu dul liggéey bi te liggéeyam bii nga xam ne moom lañu digal mooy suñ njariñul tey mooy suñ njariñul ëllëg ndax lépp a ngi ci ndax indiw fi lenn loo xam ne lu mag ñi baax ñu fi jaaroon liñ indi loolu la indi muy sëriñ tubaa sëñ Modou Moustapha sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma sëriñ Mbacke Mohamed fa yéene seen naal lépp mu àggale ko ba àggale naali boppam kon xam naa ñu taxaw loolu bañ julli ba noppi Euh, secrétaire administratif bi nga xam ne moo jiite section bi eh, wàllum carte ak reçu lu fiy dugg ak lu fiy génn lépp mu di ko saytu di yónnee convocation bi kon kooku bu waxee ci kàddu section bi war na cee wax na ko ñëpp maase teewlu euh, sëriñ Cheikh bisimilah. kon di wax rek ne euh, kon kàddu soxna moom ak sëriñ Bassirou Diop ñu wax ne seen kàddu. Euh, weesu lulul kon sant mbooloo mi ñu xam ne sant nañ leen bu baax ndax euh, bureau national bu ñu koy wax section yi ñoo tax waaye section yi bu ñu koy wax tamit daayira yi ñoo tax waaye daayira yi bu ñu koy wax tamit membres yi ñoo tax kon mu di leen xamal ne mboolem liggéeyu 2023 bi lépp loo xam ne ndigal la te bàyyi ko ci sëriñ Baara ba agsi ci section bi neen xam ne ndigal loola section bi jëfe nañ ko ni mu waree ba jëfe ko nu kawe njortam kon loolu nee na mi ngi ciy sant ñëpp waaye di leen xamal tamit ne mboolem section yi nga xam ne euh, ñoo nekk ci Sénégal di 21 section yi na ngeen xam ne section Taïf benn section mënu ko ci ak ndigal lu mën a doon kon nag nee na loolu nañ ko def ak laxasaay bu baax a baax a baax te xam ne it kii ñuy liggéeyal dañoo ànd ak moom di ko liggéeyee rek waaye dese nañ koo xam waaye buñ ko xamoon rek. buñ ko xamoon lépp loo xam ne def nañ ko ci liggéey bi rek duñ ko gis wala duñ ko ndamoo teyit danañ xeeb loolee ndax doon na koo xam ne du nax kenn waaye kenn mënu koo nax kon liggéeyam bii nañ xam ne mbir a ngi ci moo xam ne képp koo xam ne xam nga ko doo tala nelaw guddi ak bëccëg yooyu mu wax kon danga ko ci def te nee na liggéey bi rombut bu sëriñ bu wootee boo mënee wuy ji nga wuy ji buñ laajee boo mënee joxe nga joxe kon loolu ak dagg kàttu bi nga xam ne moo lay boole ci mbooloo mi kon doonut lu jafe xanaa li fi nekk rek mooy euh, nga topp sa bakkan rek waaye jafewul ndax dagg kàttu wi su sëñ bi wootee boo mënee wuy ji nga wuy ji buñ laajee nga joxe wax dëgg yàlla loolu jafewul tey nit ki bu xasee ne aslamtu nafsi nga xam ne sa adduna ak sa alaaxira yépp sa ngërëm li yaa ngi ko yaa ngi ko yaakaari ci sëriñ bi kon loolee ku koy caaxaane rek xamoo ko kon képp ku ne aslamtu si nee na na nga xam ne yow moomatoo sa bopp waaye nag nee na moom mi ngi sant ñëpp waaye di soññ ñëpp nag ñu gën a laxasaay bu baax a baax ci li nga xam ne mooy liggéey bi di wax ne it euh, màggal gi nga xam ne moom lañ dëgmal di màggalu 11 mars mi ngi koy fàttali euh, di ko soññee ndax dañ koo ànd ak jamaaxa bi te ànd bi yàgg lool ñu dox ba budget bi agsi ci 4 million 4 million yooyu nag section taaf bi am ci deux million deux million yooyu nag euh, sous section femme dañ ko cee sas 850 mille euh, homme bi ñu sas leen ci 850 mille ansaaru diin ci njëriñ sëriñ Mbay Gay ñu sas leen ci 300 mille kon nee na màggal googu mi ngi koy soññee ñu xam ne sas wi agsi na jox nañ ko daayira yi kon président daayira nañ ko soññee te membre yeen nañ ko fas yéene joxe. ngir président yi man koo teel a versi tañ xam ne si na ci jàmm kon nee na màggal googu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax te mooy bisub euh, sëñ Cheikh Mbacke euh, sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak sëriñ Mbacke Mohamed kon bisum ñaari góor yàlla la euh, mu wax ne it mu ngi fàttali li nga xam ne mooy école yi te it ahibaul xadim li nusrati diinil xawim jooju kon kenn ku ne xam na ne dimbali diine dara jiituwul ca xam-xam te sëriñ bi xam-xam boobu yitteel na ko lool ba taxoon mu taxawal fee ab école euh, di ab lycée ca Touba ba pare digaloon section yi ne section bu nekk na am benn màkkaan boo xam ne moom it dana fa mën a am ab école kon kooku diine ji ñor na ko xam-xam bi ñor na ko kon loolu nag bu yëgut sëriñ Baara joxe a ndigal kon sëñ Bassirou Diop nee na mi ngi koy fàttali ndigal loolu ci cent mille francs yi képp koo xam ne man na ko mu joxe ko képp koo xam ne mënu ko fa la kàttanam tollool mu def loola mu wax ne it mu ngi sant bu baax ndax ñi nga xam ne jot nañ fee teewal seenu ñaq toll na ci un million neuf cent trente-huit mille trois cent soixante-quinze ci diir bi mu ko tàmbalee laaj ak léegi kon nee na wax dëgg yàlla loolu kawe na njot ndax ñaari millions yi tuuti moo ko manqué kon nee na loolu waaye nag nañ gën a góorgóorlu continuer ci joxe bi ku joxe woon te mën a joxe waat it nga xam ne doyut ndax ku ndékki da nga bëgg a añ te ko añit da nga bëgg a reer kon ñu xam ne mbirum sëriñ beet noonu rek la demee kon képp ku manit na defaat mu ne mi ngi jaajëfal bu baax it ñetti daayira yi nga xam ne ñoo aaye tournée bi tey ci seen situation bi nga xam ne am nañ ko ci carte ak Russie euh, muy minnatu ñoom daayira mix lañ boo xam ne mix góor ñi ak jigéen ñi dañoo nekk benn daayira euh, ba pare dem bokk ca jigéen ña ñoom 2022 jaay nañ 67 4 ñi ngi tolloon ci 67 membres 2023 euh, bi ñi ngi toll ci 95 membres kon ñoom daay euh, daayira Minatu yokk nañ 28 personnes nee na mi ngi leen ci sant bu baax daayira Daaru Xuddoos muy muy om bi góor ñi ñoom 2022 ñi ngi nekkoon 95 membres 2023 bi ñu nekk 116 membres kon Daaru Xuddoos daayira góor ñi kon yokk na 21 personnes kon ñoom it nee na ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci effectif boobu euh, femme bu daaru xuddoo sit ñu wax ne 2022 jaay nañ 103 cartes euh, jaay nañ 103 nekk nañ 103 membres 2023 bi ñu nekk 110 membres kon femme bu daaru xuddoo ñoom it yokk nañ 7 personnes kon ñoo ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax ñoom it mu wax ne Madina góor ñi 2022 nekkoon nañ 65 Euh, membre 2023 ñu nekk 93 membre kon ñoom it dooleeku nañ 28 membre kon ñooñoo ñu ngi leen di jaajëfal bu baax euh, femme bu Madina mu wax ne 2022 jaayoon nañ 96 nekkoon nañ 96 membre 2023 ñu nekk 76 membre kon ñooñu euh, am nañ benn écart tuuti muy toll ci 20 personnes yoo xam ne moo leen tee àgg fañ àggoon daaw kon loolu it nee mi ngi sukkandiku ci ñooñ di soññ mbooleem daayira boo xam ne fa nga àggoon daaw àggoo fa ñuy gën a góorgóorlu lu baax ci njaayum carte mi ak reçu mi ndax it mbooloo mi mi ngi fi effectif bi kenn ku ne xam na ne ku ñëw ci gàmm yi ak màggal yi ak ak ak ndaje yi xam ne mbooloo maa ngi fi te tey lañ gën a gëm sëriñ bi waaye la des rek mooy da ngay gis koo xam ne day renouveler boppam renouveler ak njabootam exemple rek mën ngaa yëkkati 10 000 francs dem ci administratif bi nga bokk. mu renouveler la vingt rougi ca déwén sa nga jox ko cinq mille mu renouveler kon am na dix personnes yoo xam ne renouveler nga te ren renouveler loolu nag mooy waral ne euh, manquant yi di am te nañ xam ne luñ li liñ nekk njaboot gi dañ leen ca war a yóbbaale kon nañ leen di bàyyi xel ndax tegub màggal tegub gàmmu ak leneen ak leneen nga mën caa joxe euh, dix mille francs wala vingt cinq mille wala trente mille 500 francs bi nga xam ne rek mooy li gën a mooy mooy li gën a far mu tëla kon loolu nañ koy bàyyi xel bu baax a baax kon nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax ci effectif boobu euh, mu wax na it euh, femme di sous section bi ci njiital soxna Khoudia Mbaye euh, muy jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir section bi seen daayira yi seen li seen rapport li nga xam ne liggéey nañ ko ci atum 2023 ñoom ñi ngi jotoon carte 126 moom lañ jotoon ci carte ñu jaay ci 100 desal ci vingt 26 Russie ñoom ñu jotoon ci 884 884 euh, yi kon jaay nañ ko ba mu jeex amutu des kon ñoom li ñu jotoon ci carte ak Russie yëpp ci 2023 ñoom ñoom soxna yi dafa toll ci mille 1010 li ñu jaay lépp ci carte ak Russie 2023 ñoom soxna yi mi ngi toll ci 984 euh, desal 26 total kon boo xoolee rapportu soxna yi euh, fañ àggoon daaw am nañ écartu 16 fukk ak juróom-benn moo leen tee àgg ca lañ ca membre yañ amoon daaw kon foofa lañu waxoon rek mbooloo mi mi ngi fi li ci des rek mooy ñuy farlu bu baax ci renouvellement xale yi euh, bu doonee sous section homme ci njiital Serigne Cheikh Kan li euh, liñ jotoon ci carte ñoom góor ñi mi ngi tolloon ci 520 ñu jaay ci 232 desal 288 liñ jotoon ci Russie toll ci 1786 ñu jaay ci 1430 desal 356 liñ jotoon ci carte ak reçu lépp toll ci 2306 liñ ci jaay lépp toll ci 1662 liñ desal lépp toll ci 644 kon rapport sous section homme kon ñoom lañ amoon daaw euh, dolliku nañ luy toll ci 91 membres dolleeku nañ ko euh, soo ñëwee ci rapport section bi di global nga boole ñaari rapport sous section yi liñ jot ci carte lépp day toll ci 646 liñ jaay ci carte lépp day toll ci 332 liñ desal ci carte lépp section bi day toll ci 314 liñ jaay ci rusi lépp liñ jot ci rusi lépp day toll ci 2670 liñ jaay ci rusi yëpp toll ci 2314 liñ desal ci rusi yëpp toll ci 356 liñ jot ci carte ak rusi yëpp ci section bi day toll ci 3316 liñ jaay ci carte ak Russie yëpp ci section bi day tool ci deux mille six cent quarante six liy des lépp ci carte ak Russie section bi day tool ci six cent soixante kon muy xam la ne euh, effectifu section bi daaw section bi seen membres yi mi ngi nekkoon deux mille cinq cent soixante onze ñaari junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn mooy li nga xam ne bu ñu laajoon section Taïf ñaata membre lañ ñoom nga mën a tudd ndax ñoo dagg carte ak Russie bi. mu wax ne kon ren ñi nga xam ne ñoo dagg carte ak reçu bi di effectif fu 2023 mi ngi nekk 2646 ñaari junni ak juróom-benn téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn kon ñoom ñooy membres yi dagg carte ak reçu ren kon boo xoolee section bi yokk na lam amoon daaw yokk nañ juróom fukki ñaar fukki membre ak juróom 75 kon loolu ak sant yàlla la waaye ñu gën a góorlu bu baax ndax nee na lim seetlu ci tournée bi daayira buñ àgg rek maanaam kenn ku ne pas-pas ba mu yor daf ko yéem ak teeru bi nga xam ne moom la ñuy teeru délégation bi nga xam ne ñoo bàyyi koo taay fi ñëw ak ak ak ak maanaam euh, mbooloo mi dajee nga ñu dajee ak maanaam tëni yi fonk gi ñu koy fonk loolu moom lu lu mu seetlul boppam la tey lu ko neex la ci tournée bi tey tournée bi wax dëgg yàlla nee na seetlu na ci ren loo xam ne am na ci yëg-yëg boo xam ne mosu ko cee am loolu nag day day ñaan ñu gën koo dolli bu baax a baax nee na nag lii di bureau section bi sant na leen bu baax looloo existé na ci ay yoon bi ma ko wax bureau section bi nee na sant na leen bu baax a baax commission bu nekk titulaire ba nee na mi ngi teg cant gi ci loxoom mu jaale ko ci mboolem membre yi topp ci moom waaye jàppale nañ ko ci liggéey bi te fekk seetluñ ko ci dara euh, ndax ndigal yi na ko sëñ Moussa Gueye ñaane woon ndigal yi tiifoo na wootee bari na waaye teewut lu ñëw rek maanaam xoolu xooluñu jëmmam jëmmi sëriñ bi rek lañu gis ci moom loolu nee na mi ngi ci sant bu baax te xam ne lépp sëriñ bi la du kenn euh, mu wax euh, kii euh, réunion yi nga xam ne exécutif muy réunion yi nga xam ne ci la ñu nase lu baree bari bu ndigal jógee ca kaw mooy bureau exécutif section yi amal nañ ci fukki fukki bureau exécutif ci 2023 bi bu dee intercommission yi ñuy woote amal nañ ci ñetti intercommission ci 2023 bi bu dee réunion section yi nga xam ne dañ koy woote amal nañ ci ñetti réunion ci 2023 bi bu fekkee euh, section Taif bi ak jamaatul muridin asaarixin ndaje yi ñu amal ci biir at mi amal nañ ci benn ndaje bu dee centrale yi ñu amal muy àllarba yi amal nañ ci 38 centrale ci année bi muy fanweer ak juróom-ñett kon loolu la ne woon euh, dana leen ko jottali kon nag ñun nag ñoo ngi jéggulu lépp loo xam ne am na ci des rek ci ñun la waaye ni mu ñu ko waxee woon moom mat na lool ñoo ngi jégalu bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi kenn ku ne ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo yi sëriñ Abdourahmane Mbacke Gaynde Fatma di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu te noonu lañ koy ñaanale sëriñ Moustapha Mohamed. di ko ñaanal bu baax suñ borom yàggal ko fi lool te wéral ko noonu lañ koy ñaanal sëriñ Saliou Mbakke di suñu bunt ci sëriñ Touba di ko ñaanal bu baax a baax lépp lu mu nar ci yoonu maam wi mu def ko nu kayo njortam te ñaanu ko ak moom ñun suñu kàddu rek duñ def lu rek di sant sëriñ Basirou Diop yow mi nga xam ne yaa jiite section bi yàgg soxna Momintu Mbàkke Mohamed mu di quartier bii nga xam ne moo di quartier Madina yàlla dogal bàyyi bu loo nekkoon ci bopp bi jël boppam teg ma ci ma jiite leen nga xam mujj gi sax la ma wax mooy sa président d'honneur la waaye du ma ànd ak yow ci terrain bi kon demal mu mel ni kon amul lenn ndigal loo xam ne mos na fee wàcc ci quartier bii di Madina mu wax lañ ci kenn di ci am lenn lu mu ci xebet dañ koy def na ma ko na na ma ko bëggee kon loolu bas maa la koy seeral bu baax a baax xamal ne la ñii ma àndal xañ na néew nañ waaye ay jàmbaar lañ ñu bëgg sëriñ bi lañ ñu nangoo liggéeyal sëriñ bi lañ nag tey suñ mënoon a cité dañuy cité waaye duñ ko def waaye nag du kenn ñu ñaar suñu mbokk yi nga xam ñoo nekk bitim réew dëkk fii ci quartier Madina amul benn yoon boo xam ni duñ déggante ak ñun bit bi set di laaj fu ngeen toll lu ngeen manque lu ngeen bëgg kon ñu ngi leen sant bu baax yéen ñi nga xam ne yéen nekk bitim réew euh, di leen dollee ñaanal xam ne leen bàyyi foofu moom sëriñ bi rek la kon daal bas bu fekkee ne bu jëwriñ gërëmee sëriñ bi gërëm naa xam ne ñii di quartier Madina moom gërëm naa leen bu baax a baax jërëjëf. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim laa hawla wala quwwata illa billahi ali asimi rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant Seexul Xaddim di ñaanal baax Seex Musaa Muhammad jàmbaar lislaam ji sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba yéene liggéey lislaam lépp rek suñu borom dimbali ko ba mu def ko mu ànd kook mboolem jullit ñëpp ñu ko bëgg ak ñi niru ay noon noonu lañu la mën a waxe ndax ab jullit góoma ne dana xam njariñ di ko noonu te ñëpp njariñ rek la wër te suñu borom teg na ko ci loxoom itam tekkiwul ni nag bu ko tegee ci loxoom njariñ daa jeex waaye ci ñun ñu aju ci moom mënuñu am njariñ ci lu dul ndigalam kon suñu kat loolu lu ñu jiite la waaye du lu ñu tax a bind question diverse ñu tax a bind question diverse dëgg mooy dañoo seetlu benn affaire boo xam ne léeg mu dal kenn ci ñun te amul kenn ku mën a yëkkati loxo waat ni du ma mës a gaar ci dund mooy xeeti tawat yi nga xam ne léeg mu gàllankoor mbokk moo xam ne ñoo bokk mel bu muñ sol bokk fenn fu ñu aj suñu pas-pas te kenn du am sikki ci ni maanaam ku wér pas-pasam la te lépp lu mu def ci liggéeyam kàttan mu ci agul waaye xolum yéenee ko gàllankoor yooyu nag day faral di am te bari lool ñu ñaan ci barkeb sëriñ bi mën bu mënta ñàkkit muy soree te suñu borom def ku ne ci ñun poosam loo xam ni saabu bu gàllankoor boobu amee ci dogalu suñu boroom mën koo fajal boppam te kenn du ko yëg ndax ku ne bëgg sutura ci sa bopp waaye nag yàlla daa yor ab sañ-sañam yor ab coobareem sàkk jàmm bi moom ko di ko di ci dogal lu ko neex ba léeg-léeg mu xaaj nit ku loo xam ne xëy na moo gën ci moom waaye jàmm bi du ko xam mën naa ma doon test ci mbooloom wala ma doon test ci ñëm dëkkal ci ni kii kat aaja naa dimbali waaye dañ ko rëmb gauche droite xëy na ñàkk yëg la wala lu mu doon loolu man dama ko seetlu lool te defe naa mbooloo mu toll nii bu ñu sotee kenn nit jublu ko faj ci tawatam mbaa ci xaajoom day faju waaye nag li ma gën a yitteel mooy tawat ji damay def léeg-léeg ma dégg ci biir mbooloo mu toll nii xoole nii ñu toll ñaan ñu ngi yalwaanal mbokkum taalibe mu mbokk ci ñun moo xam ne dafay am ordonnance mënu ko jënd dafa ruslu waxee nu du neex waaye jublu ma ci ñàkk teggin jublu ma ci dara ni seen xol yi sete rek neen sama xol sete ci dimbalante am moo kumba ci ni yéen a ma gën a setu xol ci dimbalee waaye am na ci loo xam ne léeg ku ko seetlu da nga ko war a wax donte yaakaar nga ci faju waaye bu fajuwuti nga wax ko rek ndax mbooloo doo ci bokk amul xalaat doo ko jàllale ba waroon ma waroon ñu joxe question diverses yi loolu bu ñu mënee sensé méthode bi ñu koy defee ak mbooloo mi ni muy mën a taaroo ci kàddu yalwaan saa bu ko yëkkatee ci am malaat amul sikki ci nit doo bari lay te képp ku jaaxle ba wax soxlaam ci yalwaanal ma ci mboolam lu ma fajo maanaam maa ngi sàkku ndimbal ci mbooloo mi lu ma fajoo daa dem ba sës maanaam jënd na ordonnance ba mënatu ko jënd ña koy seet si seet si nañ ko ba mënatu yoo ñëw baa ko ñëwit mbaa jàmm nga fanaan rek lay def te it yi xew li xew fii ñun ñëpp xam nañ ko du ko nettali sa morom boo malaat bet di mbokk malaat bi mbaa ma caa jaar te daa am ñoo xam ne yàlla daa def ci ñoom ñu gore gore goo xam ne nii bu buñ doon faatu ci kaw loolu hôpital duñ mas a wax nangam loolu nag ku nekk ñu quartier ba nga dëkk soo ko seetlootee bul ci xaar kenn ndax defe naa buñ toppee texte yi li wax malade bu mel noonu bu amee daayira bu mu dëkk noo ko war a njëkk a taxaw ndëkk fa naan jox leen ko cinq mille nangam ak nangam maam li wax ñu taxaw ko. kon ku toll foofu daa mat a dimbili mat a dimbali goo xam ne nii mat a jàppale jàppale goo xam ne nii te lot lot goo xam ne nii maam tuuti na ci waxal ko boppam baa mu defal ko boppam. ma leen nuyu te leen siyaare leen jégalu bu baax a baax a baax di jël kàddu gi ci turu daayira Minatu ci njiitul soxna Fatou Ndiaye mi nekk président bi ci jigéen ñi. noonu day tàlloo ak àndal di tuur góor ñi sëñ Cheikh maram ak mboom xam ne ñoom àndal di sant bu baax a baax a baax di nuyu nag section Taïf ñoo leen nuyu te xam ne danoo nekkoon ca tool ya weer yii yëpp waaye yàlla dogal na dellusiwaat nanu ci liggéey bi parce que yéene ànd ak yéen ci wee yi nu jëm ci suñu kanam ba keroog saa borom dogal na ko soobee ñoo ngi sàkku ngeen dool na ñaanal bu baax a baax sa borom may nu kàttanuk ak cawarteeg man di ànd ak yéen fu ngeen toll ci liggéey bi te li sëñ bi bëgg rek noonu nu sax ca lool noonu ba keroog nu fi jógee kon li ci des mooy sant bu baax a baax a baax waa daayira Minnatu du ñoo xam ne dañuy jot leeg cant bu baax mboolem section Taif di ko teg ci loxob Serigne Bassirou Diop mi nga xam ne moom la saa teg ci kanam section bi fi ñu toll ñu ngi koy jox cant gi di ko xamal ne ko am nañ mbégte lool ci doxinu section bi ak liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ak ni ñuy dikk ci ñoom ak li ñu di yëgal ci ay xew-xew ñu ngi ciy sant bu baax a baax waaye ñu ngi sant nag ñaari quartier yi nga xam ne ñoom lañ leen booleel muy Madina ak Daaru Xodoos muy ay dëkkandoo yoo xam ne yu jaxasoob liggéey nekk benn daanaka ñetti quartier yooyu daanaka seen lépp benn lañu kon ñi ngi leen di sant bu baax seen i taxawaay ndax nee na ñoom ñooy seen reyukaay ñooy seen i teeteewukaay ñoom ci lañuy jàpp jaar pour mën a am luñ bëgg kon ñu ngi leen di sant bu baax di ko teg ci loxo njiit ya dañ ko jot leen mboolem waa quartier ba ñu ngi leen sant bu baax leen gërëm bu baax di sant nag bu baax a baax ci. doxe bi di wax wax na seen pas-pas fas nañ ko yéene feddaliwaat ànd ak yéen ci lépp nu ko sëriñ bi bëggee lépp lu ñu leen wax rek donte le bu bari wut nit donteele le ñu doole waaye lépp loo xam ne jox nañ ko ci ndigal daal fas nañ kenn du leen ca man seen kamtalaay kattan kenn ku ne naa doxee nam ca manee ñu ngi leen di sàkku na ci yéen ngeen di leen dollee leeralal te di leen dollee ay soññi itam ndax ab paaka lu mu ñaw ñaw du tey ñu daas kon ñi ngi sàkku ci yéen ay soññi waaye nag na xam ne daal wéeruwaat nañ bu baax a baax a baax ci daayira bi yaakaar bu baax a baax sëriñ bi te ñaanal sëriñ bi ne sa ak àggale yi yéeneem te tofal na ci gannaawam lu mu soxla sa borom defal na kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp loolu na ma waa daayira minute wax ne naa leen ko wax jërë ngeen jëf fa salaam kon dañ def lu dul jàll ci kàddu gu mujj gi muy kàddu sëriñ bi ñu fas cee ànd ak sëriñ Cheikh Kandonga euh, sëriñ Cheikh bisimilah. rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokk yi noo ngi leen di nuyu bu baax noo ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sëriñ Touba waaye di sant itam sunu yaakaar Serigne Modou Moustapha Mbakke moom sëriñ Mouhamed Mbakke yàlla na ko sunu borom defal ak bëggam te yàgg koo liggéeyal te mu nangu liggéey bi di sant ci teewaay bu tedd bii ci barab bu tedd bii nga xam ne si ku ma ne borom a ngi nuy gis ndax ku sonne la ci liggéey bii. di sant soxna yi bu baax ci liggéey bi seen cantuk bopp goo xam ne mënuñu leen koo ñàkk a beral ndax sëriñ bi beral na leen ku nuy gis ci loo xam ne teew nañu fii ak yeneen i jataay sëriñ Moustapha Bassirou loo yëkkati kàddu wax ne sëriñ bi wax na ko na ko santal soxna yi bu baax ndax ñoom day day def képp ku ñëw fi ñoom fi moom di ko wax rek danga koy wax ne ko Mbàkke soxna yi day tubaarkal la ay jàmbaar lañu lool loolu teewe nañ ko fii ak gàmmu teewe nañ ko fi màggalu 11 mars kon nag jigéen am na cër bu rëy rëy ci liggéey bi boo xam ne ndax buñ ko seetloo rek aljamaatu rahmatun mbooloo yërmande la te fuñ dajee ñoo nuy ëpp fuuf ndax defe naa bu ñu dégloo présence bi nga xam ne moo fi teew di juróom-benn téeméeri nit ak ñeent fukk ak juróom jigéen ñi toll ci ci daanaka ñeenti téeméer kon ëpp nañ nu fuuf kon soxna yi jërë ngeen jëf sëriñ su baax si jërë ngeen jëf tey jii xam ngeen ni liggéey la boo xam ne daanaka liñ fi wax lépp du jar nu di ci jaaral kenn ku nekk ndax noo ko déggandoo daa tolloog tey jii lañu ñu war a tëj tournée 2023 fas yéene ubbi am xët mu bees mu jëm 2024 dugg nañ ci ak bisimillahi rahmaani rahim yàlla nañ ci génn ak alhamdulilahi rabbil alamin ba song yeneen i at nuy am kontante loolit ci administration bi ci liggéey bu rafet bi waaye di sant itam mbooleem président daayira yi ci mbooleem section bi fu ñu mën a nekk ci biir dëkk bi ak bitib dëkk bi ak daayira yi nga xam ne dañoo nekk sax ci yeneeni section waaye boole seen bopp ci Taïf loolu lu mat a leeral la muy lu mel ne Kédougou gi nga xam ne dégg ngeen ñu wax ne demoon nañu fa demoon nañu fa ca fan yee e, ku mel ne man ak sëriñ Basiiru Diop mi ak sëriñ Abdul Fatah ak sëriñ Moustapha Lo ak sëriñ Mor Silla mais ak ñeneen àndoon nañu fa dem ngir Kédougou dafa nekk daayira boo xam ne bu yàgg ba léegi dañoo boole seen bopp ci section bu Taïf te ñoom section bu Tambacounda moo leen gën a jege xam ngeen ne wax nañ leen ne demoon nañu benn daayira bu bokk ci Thiès te xam ngeen ne Thiès it ab section la Serigne Ibra Sey nekk fa ak ñamu àndal di liggéey liggéey bu rafet am fa it ab daayira boo xam ne ñoom dañoo boole seen bopp ci section bu Taïf ca biir Thiès mu mel ne demoon nañu fi it Mbàkke Bawal xam ngeen ne Mbàkke ab section la am fa it ab daayira boo xam ne dañoo boole seen bopp ci section bu Taïf xam ngeen ne am na ab daayira bu nekk Dakar xam ngeen ne Dakar ab section la waaye mu am fa ab daayira boo xam ne dañoo boole seen bopp ci Taïf ak yi demee noonu ñetti daayira yi ma wax nag muy Kédougou ak Mbacké Bawol ak Thiès fu mel ne cees ak Mbacké Bawol di waa kër sëñ Omar Diop ci li ñu yàgg a dégg li ci ay nett ci seenu njaboot ñoom ci seenu njaboot te yàgg nañ ko dégg ci seeni kilifa ñu wax ko maanaam la wax moom mooy seeni kilifa ñoo sàkku woon ba càkkuteef googu te jamonoy sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma la woon seen mbooloo ak seeni taalibe fu ñu mën a nekk ñoom nañu aju ci Taïf kon ku mel ni sëriñ Modou Abdoulahi Diop ñoo ngi ñaanal njabootu sëriñ Omar Diop jàpp kon gis ngeen fu mag ña fa ñu toll woon gàddaay ba fu sag njaboot nekk nga gàddaay yël leen ba fu ñu mën a nekk seeni jëmm di fa fanaan waaye seeni ruux ak seeni jëf moom di fanaan si tayif looloo tax seenu njaboot ñoom fu ñu mën a nekk bu ñu ma teeb daayira ci section bu tayif lañ koy boole keedugu it di ay jàmbaar sëriñ Moustapha Dieng tubarkàlla ne fa ak gaañe di liggéey liggéey bu rafet ñu fekk leen ci liggéey bu yéemee wax dëgg yàlla ñuy jàmbaar yu wóor sëñ Cheikh Dieng laax mii bokkoon na ci ñi nga xam ne bokkoon na ci tournée boobu war nañ du fa daara yi alxuraan joo xam ne fekk nañ leen ñuy jàng te daayira ba ñoo yor daara ja ka fay jàngale laaj naa sëñ si la mii mu ne ma sama jarbaata wala bokk na ci ña fay jàngale sees ba fa nekk ak yépp dañu ko jënd te suuf yooyu ku ne xam na ne lu seer la te ña ngay dokkat yeneen kon lañu fa fekk ci mbooloo naam am na lu mu toll waaye nag la fay pëstee fa ko ëpp kon Kédougou moom ñoom bokk nañ ci ñi nga xam ne soññ nañu ñëpp moom soññ nañu ñëpp sëriñ Basiiru noo ngi lay nuyu bu baax di la siyaara bu baax yaag soxna mu'minatu di la sant nag kibis bii ci daje bii ak nii nga ko defe waaye nag ah mënta ñàkk ndax kera bi nga xam ne Baye Abdoulou génn na toog fii ci bitti wax waxam ju rëy ju siiw joojee wax na tey jii day képp ku jaayanteeg sëñ Moustapha te muy dëgg te nga nekk fii maa ngi mel ne ku baayam dee ku taxawul fii fi sama kanam ne ma sigil ndigaale xàmmi naa la ci mbooloo mi keroog rango ñu bari tuur nañ waaye keroog ay pëstif dëgg ay jaayante yu wér feeñ na te jaayante yooyu ca la mbooloo mi tàmbalee yokk woon na naam waaye di gën a yokk nag bu baax sëriñ bi roof ci loo xam ne gannaaw yàlla ak pëseefub mbooloo mi jaayante googee moo ko waral jaayante googee nag sëriñ Basiiru soxna moominatu mbooloo maa ngi nii kilifa nag du tuuti kilifa yàllaa koy tànn tànnul boppam ajuwul ci mag ajuwul ci ndaw boo seetee jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam mboolem ñi ngeen dégg ñu doon xeex ci lislaam ak yore woon ay responsabilité ay ndaw lañu woon kon pëstef mooy ëppaate waaye kilifa moom yàllaa koy tànn te bokkoon na ci tomb yooyu nga xam ne Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké moo ko waxoon danañ ci fàttali teew ci sunum xel nga xam ne wax na ne képp ku ko def bokk nga ci ñiy defar daayira waaye képp ku ca def benn bokk nga ci ñiy yàq daayira ci yamuy tere mooy ñàkk a teew ca mbooloo ma te tey ko te amoo benn ngàllankoor boo mën a layal di teew ca mbooloo ma di déglu nit ña ba ñu wax ba noppi ba nga xam fa ñu wax jëm nga wax fa safaanoog mbooloo ma jublu ci linkaar waxi sëriñ seexa ñàkk a nemmi ko sa mbokkum taalibe tomb yu bari la lekk xaalis bi ñu ñàkk laa jiital teelaa dox ak jiitu te doxoo ak fakkas sal jiit yépp sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké moo ko waxoon kon man de maa ngi ñaan ci yàlla te di ko ñaan ñu ñaan leen ma ko yooyu yàlla bu ma ci def dara sëriñ Basiiru jaayante googee nga xam ne moom la sëriñ Abduloo waxoon fii ab tokkoor dañu koy ñag boo bañee mu róor sama jaayantee ngi nii ma di ko fedd li sëriñ Basiiru ca jaayante googee joxal ma ko maa ngi jaayanteeg yow bis ni ko tey ci liggéeyu sëñ Modou Moussa bii ca jaayante Baye Abduloo bi di la ko seereel di ko seereel njabootu sëñ Moussa Mbacké gii képp ku fedd li jaayante boobee it yal na nga bokk ci ñu sëriñ Mouhamadou Moustapha dimbali tey ji ak boo ëllëgee sëriñ Basiiru noo ngi lay dénkaat mbooloo mi sëriñ bi gis na ko kon noo ngi feddali sunu jaayante ak yow te di la wax ne it dërëm buñ la ci jox yàlla na sunu borom defal borom ay kattani kattani wér ay milliards ba nu mën a jekku ndigal li ndax ndigal li àlla la koy def jox leen ko sëriñ Basiiru ma nga nale noo ngi feddali sunu jaayante di ñoddi waat sunu laxasaay di ko jaayante waat sunu yow yaa dox sunu diggante ak sëriñ bi lépp loo wax. loonu ñaanal sikkuwul ne dana nu dal waaw Baye Mbaye Gueye nee na kàddu yaa ngi nii waaw waaw Baye Mbaye Gueye nee na kàddu yi Serigne Cheikh yooyee mi ngi nii nga xam ne sëriñ Cheikh a ko waxoon ci fi ma toll woon rek fi la Baye bay Gueye toll nii mooy lekk xaalis bi ak gaaw a bàyyi nit ñi ak def lu ñuy gedde mbooloo mi ak gedd mbooloo mi rambaaj mbooloo mi fakkastal jiit jiitu te doxoo war defar ba noppi te defaroo fekk wax waxoo ca ba noppi ba wax ja noppi nga génn di wax lu safaanoog loola muy tomb yii kon dal nañu xam ne tey jii bisub jaayante la te jaayante gi sikkuuma ne sëriñ Abdoulahi Makhtar Lo mi ngi ciy teg bëtam te loolu moonu ko jàngal lu ci waay def yal nay sag njot te yal nay sag pajub aajo ci barke sëñ Modou Moussa Mbakke te yal nay say ubbital wërsëg bu baax kon nag murit moom ñukk ak ñàkk ak ñuqi ak ñaq lañu xam ci moom mag ñi de li ñu amoon lee leen ko may kon daal na ngeen xam ne jëpp waajo ju waay am na ko fas ci jaayante bi ak sëriñ Basiiru Lo sëriñ Basiiru Diop ak soxna moom yi datu Mbakke jigéen ñi bu leen ci kenn man tawat yeeg soxla yeeg njàmbat yeeg yëpp yal na ko sunu borom dàq mër bam dem jiba yi na dàdd xol yi ne gëriif xel yi ne guy ci barkeb sëñ Modou saa ci barkeb ku jaayante ci liggéey bii noo koy ñaanal ñëpp te sëriñ bi mën na ko gannaaw bu loolu jàllee di fàttali ne fii nag sunu kër fii njabootu Baye Abdoulou na seen xel dal na seen xol sedd na seen yaakaar dolliku buntu kër sëñ Modou musaa bee bu jàllee fii mooy sunu ñaareelu buntu kër ci yoonu murit laa wax fii mooy sunu ñaareelu buntu kër ndax fii fii la forme formé ahibayil xadim fekk ki sëñ bi jiiraloon ci sunu kanam jox ko baatam fii la nekkoon ci néeg bii muy jëmm ji nuy jàkkaar kon fii mooy sunu ñaareelu buntu kër njaboot gi na seen xel dal na seen xool sedd na seen yaakaar dolliku fii day bàyyi Abdoulaye liggéey na fi liggéey boo xam ne bu fi tànk jërootul woon jàmm rek a fi yam sëriñ Mouhamadul Moustapha dox na ak tànkam yu teddee ba yegg si fii comme ni ko gaa ñi waxe woon léegi ne ko Abdou yow xaw ma kenn waaye yow maay sëriñ yow kon nag du ñu topp ci li ñu waxoon di ko waxaat waaye loolu rek lañ doon seere nu fas yéene fedd li nag def na bàyyi Abdoulaye Fall Moussa defoon ñoddiliwaat ak laxasaayam ne ko Mbàkke dey fedd liwaat nañ sunu laxasaay fedd liwaaleel ko mbooleem ku sukk jébbalu te yaakaar la te ne ci ndigal li noo ngi koy defaaleel ñépp bokk yi nekk bitim réew te di nu dégg noo ngi leen di ñaanal ci barkeb sëñ Modou Moussa jaayante bii ma wax ku ko dégg ak foo mën a nekk ci mennum réew nanga jaar ci sëriñ basiirloo ëpp naa bañ a bokk de ëpp naa bañ a bokk jaayante bii may wax nii ëpp naa bañ a bokk de ansaaru diin ak njëbbal des koy feddali ku bëgg dara dangay def dara yàlla na nu yàlla ak sëriñ bi sàmmal sunu pas-pas sàmmal nu sunu taalibe sàmmal na sunu njaboot saa bu nu xëyee sunu ngëm ci sëriñ bi di gën a feddaliku sunu yaakaar di gën a dolliku ndax sëriñ bi lim nu waxoon mooy nekk leen ci liggéey bi yor saayir si ma baatin bi bokk yi saayir si bu ci dara des liggéey bi nag dafa laaj xam-xam dafa laaj fit dafa laaj alal dafa laaj njàmbar dafa laaj kàttan waaye dafa laaj nag ak dogu kon yooyu yëpp nañ ko boole jëmbat ko ci liggéey bi kenn ci nun aajoo mënta faju te du lalta te du dafa laltaayi liggéeyub sëriñ bii toog ci kawam liggéey ba aajo ja faju mu fajowaale sunuy aajo sunuy aajo ci biir aajo yi sëriñ bi rek la mën a fajoo ku ci koral sa aajo yi bopp jaar fenn di ko jéem a faj du faju liggéeyub sëriñ bi rek ci la sunu aajo mën a fajoo yàlla na nu fi déwén nag jàmm fekk yàlla bu kenn wopp yàlla bu kenn faatu bu nu jógee fii yàlla na kenn koy di gën a yëg ay xéewal di gën a dottiku ba lépp lu sëriñ bi joxoñ nu man koo dagg du nu mën a ñàkk a beral benn commission donte commission yépp a ko laaj muy commission d'organisation ndax mbooloo dafa laaj organiser sëñ Ba Modou Diarra Diop noo ngi la koy seereel ndax commission bi ay ndaw ñoo ci nekk te ndaw ñi ci nekk ñépp kenn ku nekk wane nañ ci ñoom Pastef gis nañ ci ñoom détermination bu mat sëkk boo xam ne la sëriñ bi waxoon def nañ ci seen guddi ak seeni bëccëg ña nga ca commission yëpp a ngi ci communication ngi ci éducation et culture ki yor njàngalem diine ji te moo jiitu ci liggéey bi ci xam-xam ña nga ca kon benn commission bu waaye daan def fukk na nga ca def téeméer boo ko defee sëriñ bi fay la million te rikk waay liggéey bi nanu ci génn génne sal bu fekkee nekk na ci bu ci nekkuloon yàlla bu mu ci nekk maanaam wane sa bopp dem ba yàgg nga jàpp ne dara nga wala nga jàpp ne mbooloo mii boo ci génnoon tey mu taxaw bu keroogee lay gën a dox walla nga yor xam-xam wala nga yor alal jàpp ne mbooloo mii li koy doxal moteur ga ci sëriñ bi rek ay moteur bi kenn du moteur kenn ku nekk ci noonu la nga def ba defee ne jàmbaar nga sëriñ bee la ko jox moo la jox xel ma nga ko defee moo la jox kàttan ga moo la ñaanal ci yàlla ba defal la wërsëg ba kon nag rikk waay bu nu seytaane wor rikk waay bu nu doon aw ruuruwaane ci liggéey bii rikk waay bu nu ci naw sunu bopp di ci naw sunu jëf waaye rikk waay bu nu ci xeeb kenn ñi jiitu ci sunuy kanam ak li ñu leen di mag mag kilifa yàllaa koy tànn waxoot naa ko dama koy dellu waxaat kenn mënu cee am ngërëmal ahibayil xaddim nun ñii te du kilifa yi ko jiite dañu laa gërëm kon sàkku seen ngërëm rek ay dara at yu bari du ci dara ab juddu du ci dara mbay mu nangu du ci dara bari magasin du ci dara topp ci kilifa yi rek te fas yéene di defar guddeeg bëccëg te lépp loo xam ne dana doxal liggéey bi nga ne ca yàlla na ko sunu borom defal la damaa wax ne nag moo teema feelu yi lay tu tànk doon jooru di sant Cheikh Abdoulahi Lo moom Seydi Muxtaaru jàmbaari Cheikh Moustapha kee bay xur te bay jooru sa mbay mi ñor na te barkeel doo cuune doo ruuru pas-pas bu rëy nga yoroon fees dell bay tuuru jëfal nga Seex Fatma ak sëñ Mbakke luñ seeru murit nga saadix nga dis gor moo di jàmbaaru saw ŋàññi rot na nga de firdaw see di sag daaru yàlla taas ci sa barkeb liggéey bii ba ñuy seeru ngërëm ci Cheikh Moustapha amin wa waaw góoru wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yàlla naa fi yàlla